Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with Mr. Ba dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bii di English Class TV ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak di leen fàttali rek ngeen di abonné te di like vidéo yi te di commentaire commentaire yi moom dafa manqué amul ci vidéo yi te bu ngeen commentaire rek du ñu xam tolluwaayu njàng mi fu mu maanaam njàng mi fu mu toll il faut ngeen wax ne leer na wala leerul wala ngeen laaj li nga xam ne réeree ngeen ko ci biir wala leneen leson moom bu amul laaj amul tontu rek doo xam yow miy jàngale fu mu toll lan lañu am tey muy wàllu prononciation nan la ñuy def ba prononcer anglais correctly ci lan ci technique yu ñu lay jox wala ci lettre yu ñu lay wan na la saa boo ko gisee si barab bi nii lañ koy liire saa boo ko gisee si barab bi nii lañ koy liire ngir nga gën a comprendre bu baax nga xam ne dangay ngay jàng yenn mots rek nga mën a liir lu bari ok nañu tàmbali ban lañ koy tàmbalee nañu ko tàmbalee ak a nan lañ koy lire ci anglais correctement nga xam ne boo koy lire doo ci am benn problème wala technique bu lay jox nga gën koo xam nañ jël benn baat bu ñuy wax kaat kaat kaat mooy muus. fii lan moo tax A bi ñi liree ko A jàppal bu fekkee dafa nekk ci ñaari consonne consonne yi bul ko fàtte de lu dul voyelle yi mooy yi ëpp rek mooy lettre yu dijj yi bu booba A lañ koy liree comme fii muy kaat bii firi muus kaat ñu amaat beneen baat bi firi njugub maanaam baat fii du ñu wax beet baat gis nga A bi wala E bi moo nekk ci diggante consonne yi moo tax ñu lire ko A mu nekk baat benn exemple bu fekkee dañoo am xaat xaat fii A bi lan lañ koy lire A lañ koy lire lan moo tax ma koy lire A mooy dafa nekk ci diggante ñaari consonne muy H ak T beneen moo bi nga xam ne exemple la moom itam pour mën a dëggal loolu mooy sadd sad bi firi triste maanaam am lu la naxari lan moo tax ñu lire ko a parce que dafa nekk ci diggante construit muy s ak d ñu amaat beneen mot bi firi oto wala daamar muy lan car lan moo tax waxuñ care pourtant am na beneen mot ñuy wax care waaye ni leen bindee ñoo bokkul moo tax bii duñ ko wax care luñ koy wax car car pourtant a e la de waaye daa nekk ci diggante consonne ñu amaat beneen moo boo xamante ni pour gën a dëggal loolu muy sat sat bi lu muy tekki sat mooy toogoon comme nga ne yesterday I sat here démb de fii laa toogoon sat lan moo tax ñu liree ko ah mooy dafa nekk ci diggante consonne mi dem ci beneen côté nag bi nga xamante ni a bi ñu xool beneen façon bu ñu koy lire ci anglais. ki ban moo leen fi njëkk am muy name name mooy lan mooy tur bu ñu la waxee noo tudd nan lañ koy waxee ci anglais dañ naan la what is your name noo tudd yow nga ne my name is comme nga ne my name is Mr Ba maa ngi tudd Mr Ba fii a waaw kay léegi lettre bi lan moo tax ñu liiree ko fii A te liiree wuñ ko fii A comme niñ ko liiree woon ci kaat ak saat ak kor li ko waral mooy jàppal ne li ëpp ci anglais li ëpp ci mots yi anglais yi dégg bu fekkee ne mot bi dafa composé ci quatre lettres comme nii xam nga N muy benn A muy ñaar M muy ñett I muy ñeent bu fekkee moo bi nii la formé wu maanaam ci quatre lettres yu mën a nekk nag bu fekkee consonant moo jiitu ba pare beneen bi ci topp nekk vowel letters comme bii nga am bi ñu am lan ñu am a bu fekkoon ni a la tim maanaam i wala mu nekk beneen moo dina am beneen lecture buñ koy liiree dégg nga bu fekkee nii la mel da ngay jàpp ne consonant vowel letters bi nga xamante ni moo nekk ci deuxième moo taxaw deuxième position da nga koy liiree comme ni ko anglais di ko ci alphabet bi anglais ci alphabet bi lan lay wax a kon fii lay wax ne e ne eem neem doo wax niim doo wax naam comme ni nga waxee woon kaat déedéet neem neem ngay wax neem ok neem ok léegi ñu amaat yeneen moom lu demee ni cake cake cake bii firi gâteau cake fii xam nga waxul kaak li ñu wax mooy cake ok cake duñu wax kaak lan moo tax dañoo am consonne vowel am consonne am beneen vowel moo tax ay bi nga xam ne moo jiitu ci cons ci vowel yi ñi lire ko ay beneen moom bi mooy lu demee ni same same moom itam du ñu wax sam déedéet du ñu wax sam lu tax la wax sam mooy nekkul trois lettres de quatre lettres la consonant vowel muy F ak A e ak consonant ak beneen vowel muy M ak I muy sing bi firi même comme beneen moo lu demee ni make mooy verbe bi nga xamante ni euh, exemple mooy def dara comme I make mistake damaa juum damaa def njumte ok make moom itam loolu tax moo bi nii kanaa danga ko mën a liir muy lan lañuy ñuy wax very good booba fake la wax fake fake mooy faux comme bu ñu ne fake mooy compte boo xam ne compte bu faux la ki ñu ci def nekkul ci wala fake news mooy information boo xam ne wérul mu des beneen moo nag moo boo xam ne moom ñëpp koy mën a liir muy very good loolu tax waxuñ waaf dañu naan wave wave baatu anglais la li muy tekki mooy soit yëkkati loxo walla li nga xam ne la ndox mi di def ci géej gi dëgg loolu mooy wave ok léegi nag ñu dem si beneen côté mooy kañ lañ koy liree o wala ban lay ànd ak ñu liree ko o ñu am lan ALL muy O ba léegi lu ëpp ci anglais A bu àndee ak L O lañ koy liiree A bu àndee ak L lu ëpp O lañ koy liiree ñu bàyyi ci xel bu baax ñu am exemple ci quelques mots yoo xam ne forme boobu la am loolu tax mot bi doo wax aal danga all all all li muy tekki mooy yëpp comme ma ne you all yéen ñëpp laa wax ool mooy ñëpp beneen moo comme w muy lan work work work mooy firi dox ak tànk dégg nga al bi all lañ ko lire fii ñu am beneen moo muy TALL muy firi muy tool tool mooy lu gudd bu mu ne Ali is tool Ali dafa njool dafa gudd tool gis nga fii ba léegi waxuñ taal dañoo wax tool nga bàyyi ci xel ñu amaat beneen moo boo xam ne ci même melo la comme TAL kii mu nekk la lan lañ koy liiree very good talk mooy firi wax comme ma ne I'm talking maa ngi wax ak yow ñu amaan beneen mot ci même exemple yooyu boo xam ne al lay ànd ak muy wall wall wall mooy mur mooy tabax bi nekk ci kër gi wall wall ñu amaat beneen moo ci loolu muy F A lan la wax salt la ñuy wax walla silt walla selt lan lañu ciy wax very good salt la ñuy wax duñu wax salt duñu wax selt parce que al bi fii oo lañ koy liiree nañu amaat beneen moom boo xamante ni yàgg nañ koo gis walla <clears throat> am nañu mooyu ku niroog muy f bokk ko doon liir ci beneen langue bu dul anglais lay wax am na benn sant bu mu tolloog hmm? ah konoon lay wax faal déedéet bu dee ci anglais fool lay tekki mooy firi daanu maanaam fool lañ ko wax fool ñu am beneen moo boo xam ne moom ñëpp a koy jëfandikoo wala li ëpp saa su nekk ñu war koo xam moom itam li muy tekki ak niñ koy liiree looy wax kaal déedéet bul wax kaal bul wax keel looy wax call bii firi woote maanaam call mi wooma bye baay ba beneen